<laughs> Actu, conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck vire tout le cabinet de Aminata Touré. Il renouvelle moom itamit il remanie. Mm. <laughs> remaniement daal la <laughs> xew. waay ah, mais mais nag mais sunu yaay bi tamit noonu la defoon. waaw noonu la defoon ku ñëw mais mais souvent ñenn ñi sax dañu koy duñu ko imputer kii ñu koy jiiñ. Mhm. genre euh, suñu yaay bi bi muy ñëw da ko defoon indi ay nitam euh, léglé léeg ci ci procédure bi wala ci mode de fonctionnement bi dañu koy jiñ sax secretaire général ba ba nga xamante ni moo nekk conseil économique social environnemental te foofu ni jamono bi SG ba dañu ne ab jigéen la hmm. ñenn ñi nii daal lu bëri la foo xam ne moo fay dogg moom bokk na si ña ko fay dogal wala boog moo ko dogal donc ñenn ñi jàpp nañ ni du sax sa Seck moo ñëw rek ne dàq leen ñëpp. parce que mu ngi tàmbali dooragul. wante kële la ñu jiñ pour mettre à l'aise monsieur Seck. Ah. mu yombal affaire yi. waxuñ nag ne noonu la demee loolu ay supputation la. Ah. bi si des mooy euh, il est normal aussi quand quelqu'un mu indi équipe am. indi ay nitam parce que quoi qu'on puisse dañu nekk ci benn euh, mode de fonctionnement politico-politicien au Sénégal boo xamante ni mooy déterminer lépp. moom la gaañ yi di œuvrer moom la gaañ yi di tracer bi si des. sunu kilifa bii di Idrissa Seck ñenn ñi naan ko ndaamal kajoor ñenn ñi naan ko xel mi da ko wër euh, papa bal ñu rek euh, ñenn ñi daal dafa muus ba mu gi muus gi ëpp dayo et cetera wante mën na ko seedeel lenn ak am fula de façon très objective ak am autorité te danoo nekk si réew ba nga xamante ni danoo soxla autorité. Mm-hmm. léegi nag autorité bu exemplaire. lañ soxla modèle. boo xamante ni foo foo laal rek dañ naan ah macha allah kenn du ne mm-hmm. cam dafa am solo loolu tamit c'est une ainsi on relativise. alors kan moo nekk conseil économique social démb gis nañ ko fële ca euh, police ba. mook président Macky Sall ñu jiitle maa ngi gis gaa ñu bëri di di di reetaan naan naan naan ah am na li mu buggoon ndax gaa yi séq nañ ko namoon na ko depuis 2004 bi mu nekkee premier ministre. Mm. mais gars yi dañu bàyyi xel benn affaire xam nga xam nga man sur le cas Idrissa Seck dama ci am benn benn yàlla rek xam luy xew suba. Mm-hmm. damay ne Sénégal nañu bàyyi xel bu baax. Mm-hmm. il s'est passé énormément de chose de 60 ans à maintenant. tout à fait. et énormément de choses dépendant de qui. Mm-hmm. de quelqu'un cette France là. Mm-hmm. asma est-ce que xam nga ni France boobu. waaw gis nga bu ma la boolee ñaari info yi ñu la jox. Mm. dañu laan France boobu par exemple le président Macky Sall di dem alxamis incha allah. ah ah jeudi. demain ci li ñu wax. le président il va quand même aller en France au lieu de sortir nous faire un deuil national. avec des moo waral ay gaaf tombé waral ay gaaf. il faut que ñun ñuy am. ah bon euh, comment on appelle benn di ubbi suñuy gët di xool di xool di bañ a yem rek ci li ñuy dégg ñuy xool qu'est-ce qui se passe lan moo xew. doy na waar. c'est ah, maanaam nit du du du du lii ab du par exemple ñu ngi nii toog Pa bi toog di wax bon Pa Assane mais ci kii li muy wax lii ci kii fu muy déliré nii am na ku toog xam li xew bu ci Pa dalee mu ne eh, kii ku koy jox info bu ci dalul mu ne wëf c'est les garçons là ils délirent lii fi ne léegi nag ay sénégalais lañu dañuy dund situation di observer ne ah 1981 Senghor dafa jël nguur bi ci benn article jox ko président Abdou Diouf 35 ñu ne Senghor bi lu tax mu def loolu. ñu ne mm. waaw Senghor dafa sonnoon obligé bàyyi nguur gi l'histoire elle est faussée tubaab yi ñoo ne la baal nga baax. lii dëgg lu nag du ñu wax loolu lu tax du ñu wax Senghor dañu ne rek euh, Senghor de moom dafa bëggul nguur dafa dem ba ci digg bi bàyyi déedéet nous sommes dépendants daa am kaa moo la décidé moo naan fii ngeen nee aw léegi nag ban jour la ñuy jël ñun suñu décision pour génn si loolu qui sait. sipp rek. ah loolu mooy mooy li ñu téye maanaam tey jii di suñu autorité yi yëpp ñii di def politique Sénégal muy pouvoir <laughs> di opposition. Hmm. li ngay wax ni ñooñu ko gën a xam. waaw ana capitaine Dieye ñu ngi laa nuyu capitaine ba baax ñu ngi laa nuyu na baal ma rek ma tudd la nii le capitaine est resté dans la coalition UDI il faut se poser la question pourquoi par exemple par exemple qui c'est qui peut être plus informé ou mieux informé qu'un soldat au Sénégal Jamais. dans un sens une contribution moi j'ai wax mooy on s'attend à ce qu'il y ait un théâtre du genre Idi président j'y crois fortement. mais souvent <laughs> en fait c'est il y a une question que euh, l'éminent journaliste euh, Saliou. Mhm. Euh, Serigne Samb. ah oui il a, il la dernière c'est une réflexion. il a dit euh, euh, non euh, je me trompe c'est plutôt Charles Faye. Charles Faye il a Gaston Maréga oui. il si en

Ah. Euh, xas ma yàlla. yu am suñu deuil national bi. 480 jeunes morts. Ah, mais waxu ci. on immigration bi. <laughs> mais man je suis où. en ah, Sénégal et yaa Sénégal. en 1970 du tey bi xam naa sax duggoo ci. dëgg la le novembre bii nii rek. le général de Gaulle bi mu gaañoo. Hmm. il paraît qu'on fait un deuil d'une semaine au Sénégal. ah d'accord. ah d'accord celui nous a maltraité. esclave par exemple par exemple yooyu yooyu la quoi ça ñun yooyu ñun yooyu la ñu yàgg tàmm. une baax baax yooyu. mooy xam nga démb toog fi nga ne ñun teraanga la ñu xam joxe. waaw mm-hmm. teraanga xamuñu teraanga sunu biir. teral mm-hmm. quoi pas mm-hmm. teral sunu biir. c'est-à-dire que lu lu pour confirmer li confirmer li muy expliquer li Thiam di wax monsieur Thiam di wax euh, Modou Mbacké Thiam. Eh! asma <laughs> eh, man néew ma Sénégal dégg nga. ahankay ah, ahankay ahankay ahankay <laughs> damay yow feneen. il faut que Sénégal ñu comprendre. léeg-léeg nga toog ñu naan waaw opposition bi dañu war a jóg fu ñu jóg. booy jóg da xam si li ngay jóg lu mu doon. Hmm. opposition bi ñoo la gën a xam li xew. Hmm. dafa am jamono ba nga xamante ki fi nekkoon dafa tuddoon président Abdoulaye Wade. Hmm. sunu maam boobu. sunu maam bi baax na lool dafa am fu mu juumee wala fu ñu ko juumloo maam baal ma de xam nga fu sunu sunu maam fu mu juumee. bu ñu fàtte ni am ans maintenant dañ doon wax jamono léegi léeg ñu ne waaw euh, président Abdoulaye Wade day ñëw au mu xeex xeex bi mu dem tëdd France tëddul France de tëdd France. ka bëgg falu Sénégal gii nu nekk dangaa dem lijjanti ka sa kaw wax ka fa. ruube ka fa lobbying ka fa organiser ka fa link ka fa di wax ak ambassade fii di wax ak tubaab yi fee lëkkalikoog ñoom. wan leen ni bëgg nga leen ñu sentir ko ci ay diir yu yàgg nag di la waajal. lii fi ne c'est une réalité donc bu fekkee ne que ñun ëppuñu suñu gët si loolu waa léegi nag loolu li si de mooy boo ko déggee da naan lan moo si xalaat mais xalaat mooy kon léegi comme ñun tënk nañu tënk boo xamante ni ñaari choix la ñu am taxaw xataraayu ba ko mënee ba ñu ko mënul um négocier lan la la ñuy négocier nañ def ni les mais Paa Assane doguma la. Gbagbo. Mhm. qu'est-ce qu'on a dit nationaliste. oui mhm. man sax bi ma nekkee foofu bokk naa ci ñi. ñu la doon jox ñu lay formaté. Mhm. Euh, ba mu ba mu ba mu ba mu àndee ak ñoom. gis nga niñ ko on lui a on lui a tendu le pratiquement bi Guèye Robert di moom moo ñëw. le pouvoir était dans la rue moom na wax naan le pouvoir est dans la il faut juste le ramasser. oui ñu dimbali ko mu ramasser ko. Mhm. ànd ak ñoom mais à moment quand il a voulu mhm. changer de posture ah. ànd ak peuple bi uh-huh. mais qu'est-ce qu'on a fait on est allé le cueillir ñu teg fa Assane Ouattara mais qu'est-ce que qu'est-ce la population a fait aujourd'hui quelque part hein, uh-huh. sérieusement man je ne jetterai pas la pierre aux politiques uh-huh. xam nga lu tax waaw xoolal li mu defal réewam bañ koy rey di ko jël si di ko rey hmm. waa réewam si boppam bokk nañ ci ñi ruube le peuple même a contribué parce que a léegi nag moom ñoom moom ñu rey ko léegi xool li bi di fane. waaw c'est que. xam nga maa ngi tolloon si si sunu maam Abdoulaye Wade. li nga wax c'est pertinent Thiam. et et c'est effectivement une réalité que bu ñu subir. Hmm. sunu maam Abdoulaye Wade. waaw. ndeysaan dafa am ko juumloo. maam Abdoulaye Wade mu ko juumloo depuis deux mille Mm-hmm. xam nga 2002 diggante 2000 ak 2002 dafa am ka fi newoon sunu kilifa bii Moustapha Niass. Mm-hmm. bu mu fa jógee sunu sunu Moustapha Niass un an la def defe naa. Mm-hmm. sunu maam maam maam Maajoor booy ñëw. quand sunu maam boobu ñëw diggante bi lan moo xew. y avait un Idrissa Seck hyper mais supra fort. tout à fait. sunu président ba baax bii di président Macky Sall si jamono yooyu. aka moo soxla woon Idrissa daka daan gis bis bu ne wër wër wantit kay mm-hmm. lii àdduna bi lii mm-hmm. gis nga léeg-léeg démb dama xool image du président Macky Sall muy dox jiitu mm-hmm. après ñoo ne Idrissa comme un second ma reetaan ma maa yoon fii si kaw ci guddi ma ree ma yàlla ni muy wonee ay mbir mm-hmm. si jamono kii nga xamante ne dafa nekkoon sa patron nga koy wër mu jafe la mm-hmm. tey yaa jiitu mu topp sa gannaaw kon nag àdduna àdduna dafa gudd tax bu añ du a sedd la ba tax na suñu maam li ko jumloo mm. moo tax tubaab tubaab tubaab tubaab rax na jinne mm. parce tubaab day xool day xool li gën a sës si yow li nga gën a bëgg mu jox la d'accord ba pare taxaw di la xaar xoolal taxaw di la xaar da la koy jox xas ma da bëgg yére bi waaw am du la laaj dara de am yow yaay xool rek dóor na la un zéro na la un zéro léegi nag noonu la koy lijjante sunu maam après mu ne la diggante sunu maam sunu da lay seexal da lay seexal maam diggante xam nga ma ne 2002 mm. dafa am ñi nga xamante ne day ñëw ne ko mais sa doom ji nekk fële ci dëkku nasaraan yi di fa liggéey di leen apporter mais indi que indi ka indi ka mu bokk ci jàpp ci liggéey bi parce que moom bu ñëwee affaire dina baax. doom boobu lañu ñu utiliser. doom boobu lañu ñu utiliser ba keroog ñuy wàcce président Abdoulaye Wade. dégg naa wax bi. utilisation bi dem ci ñu indi ka magnifier ka te la logique voudrait que. jamono boobu président Abdoulaye Wade bu ne woon non du laal ci mbir yi. si njëli du bokk. Karim du bokk. day dégg jàmm. Mm-hmm. wante day ko jumloo si loolu. Mm-hmm. mais doom boobu la ñu jël utiliser ko à la fin. Mm-hmm. kan moo woo doom jooju assemblée nationale du président Macky Sall. lan moo wooloo président Macky Sall assemblée nationale doomu président Abdoulaye Wade. daa am tax. donc ñun bu ñu ubbee suñu ay gët dañ naan ah accord mode de fonctionnement mode d' emploi puzzle bien monté léegi foog ñun Sénégal ak sénégalais ñu xam ne Mm. du ñun rek ñoo toog di lijjanti élection ñun la. ak kesa des. te des kooku daan doole. Mm. nan la ñuy wàññee doole nag moo la problème bi yaakaar lijjanti loolu beneen waxtaan la. loolu nag il faut avoir gis nga noonu. merci maay joxe waat conseil. ma ne noonu. Mhm. da nga koy won ni da am fit am fulla am fayda. ñeme li ngay def. bu ko defee di nga rëcc yow. wala bokk nag dundeel je m'en fous total yàllaa fi ne. wala nga def leen. nga def leen xam nga def leen. <laughs> nga négocier ak moom. ko léegi mënuma mm. changé date ci ci ci. mais capacité de négociation. paasan ayca nit. Mm. peuple boo gis. moom ci boppam mooy arracher boppam souveraineté am. Mm. su ko xaaree ci sunu nguur yi. du am printemps arabe gis nga ni mu débuté. mais mais mais Thiam xam nga lan ngay fàtte. gis député xam nga lan ngay fàtte. peuple bi. non non non mais xam moo war a impliqué wu. non non mais peuple bi mënul impliqué wu Thiam baal ma rek wax la benn affaire. pour impliqué wu. xasuma. mu ngi mu ngi dugg si lu neex. la neex da minute rek xoolal. <laughs> lan la tuq la dugg la dugg fii nii. oui ma Thiam. peuple bi xam nga ban peuple mooy mooy mooy fippu. Mm-hmm. peuple bu comprendre. Mm-hmm. peuple bi dañ ko fatt ay bëtam ak léppam fi mu ne nii yaa ngi dégg ñu naan na opposition bi dajaloo na kii yépp furaas daa am kaa xam moo la décidé kaw kii nag la war a lijjanti gisa buñ ko lijjantiwul foofu ñaara am nga lijjanti ko foofu wala nga négocier ak moom ne ko léegi li ngay am nii la war a tëddee ñu xool ñu koy dama lay poser benn question bu gàtt mhm. est ma baal ma tuuti rek ñu poser bu gàtt mhm. parce que maa ngi dégg benn kii mu naan nañ ko attaqué <laughs> comme dama koy poser question saa yu ñu toogee fii kan la ñuy jël référence. suñu mhm. kilifa yu baax yi suñu mhm. kilifa yu baax yi. Mhm. ñaata si suñu kilifa yu baax yi. ñoo yónni seen i ñu dugg ci arène politique bi. c'est vrai de. parce que am nañ parce que am nañ un pour cent. kon xam nañ baax gi fu mu ne. même ci biir ñoom politique yi y a xam nañ fu ñu ne. mais on les laisse tomber. dëgg la. c'est dit c'est paradoxal. dafa am comme si dañuy ko ni ne ko dóor ma. waaw waaw dafa am ku leen di organiser. il faut ñu fer ci ay nax. waaw hmm. foog ñu feral suñu bopp ci ay nax suñu leen feralul. Mhm. ñu feral suñu bopp. doom yenn saa yi dañu ko nàmpal bu si amoo si mu ne la bàyyi naa wen bi ah du nii mais. waxtaan bi dana àgg <laughs> dana ñu dugal ci ki nga xamante ni moom moo di suñu gan gi Thiandou. Mhm. moom euh, mu nekk jeune boo xamante ni ab euh, pêcheur. alors mu demoon géej ñëwaat noo ko dundee. waaw métti woon na trop. Eh. métti woon na. Mhm. te aussi pare nañ pour demaat. bu fi lii fi nekk jógulee. te maa. Ah, waaw bu fi lii fi nekk jógulee. mais bi ngay dem dafa am ñu dee sa kanam. maa ngi jaale mbay poy. nga sama suñu grand la suñu xarit la tamit. ak Ibrahima Ndoye. ci yàlla. waaye yéen ñu ngi may seeraan man yéen la sama papa dëkk sama yaay moo dëkk baar ñi. Mm. tu es parti à quel de seize ans. nga dem ci gaal gi. dem ci gaal yi mu metti trop daal gi maa si gën a doon xale. deele nañ lu toll si fukki nit ak benn. mais raconte-nous nan la doon demee voyage bi nan lay demee. nan lay demee kan moo leen waajal fan ngeen départ nan ngeen ko lijjantee nan ngeen joxe. ah départ bi moom métti woon na parce que ñun man si géej lañ ma jëlee damaa demoon fanaan ci gaal yi ñu fekk ma foofu jël ma yóbbu ma parce que sama préparé woon naa lépp ba si jour bi ñu war a demee. gaal gi nag man xaw ma woon exact fa la doon tëmbee mais foofu lañ ma fekk fi ma leen jox rendez-vous si géej. foofu lañ ma jëlee yóbbu ma mais li fi nekk nii bu fi jógul ñun pare nañ pour wax ma man ne mhm. am na yóbbante yu ma am na. ay yóbbante yu ma yor mu ngi sama bopp fii. ay yóbbante yu mel nan. pêcheurs ñu mag a parce que licence de pêche yi surtout les petits pélagiques jën kaw ndox yi nga xamante ne ñun moom lañ daan napp Sénégal si la daan yëgee boppam yéen yéen ñii ñëpp yëg ngeen ne tey dépense dafa yokk. Mhm. dépense dafa yokk bu baax sax. Mhm. bu baax lan moo ko yokk jën. mais ñaata at ñoo ngi jaay depuis si ban nguur ñoo ngi jaay ay ngi jaay ay licence de pêche ay accord de pêche Sénégal kan moom mën a wax xaalis bi fa la dugg yéen ñi ñëpp fi laa leen fekk. kan moo ko gis. kenn boobu ba léegi yéen a ngi wax si politique mais participer wu ma. Mhm. parce que xaw ma si lu bëri. Mhm. tey li ma pratiqué mooy lan pêche artisanale bii nii. Sénégal mhm. ñun sénégalais yi dañoo fort si pêche. parce que tey jii nii mënoo dem Guinée jëli fa benn Guinéen. pour mu indi ñëw Sénégal di la jàppal ay jën kan moo ko mas gis kan moo mos a dem Mauritanie jël fa benn naar indi ko fii mu lay jàppal ay jën ñaata sénégalais ñoo nekk Mauritanie di fa am sax ay problème mm-hmm. ñaata sénégalais ñoo nekk Maroc di liggéey di leen di leen jàppal ay jën di ko indi fii mm-hmm. di liggéey di indi seen xaalis fii di am seen yokkute bopp parce lan moo tax ñun liñ ñu yaakaar war koo liggéey ñun ñoo war ñoo fekk suñu dëkk balaa lébu yi di ma mere ma wax ay lébu sax balaa lébu yi balaa balaa ñun ñu duñu fekk suñu balaa balaa ñu duñu fekk ñu dëkk fii mhm. la jël li ñu yor di ko yóbbu mhm. dafa war a bàyyi alal jaa xamante ne nii ñun doon see gis bopp mhm. parce que tey jii nii ñu ngi ñëw la jël lii ñu yor di ko yóbbu ku fi indi accord de pêche pour pour pour demande demande licence de pêche du question ndoxu géej bi la soxlaa buñ ko soxlaa woon ñoom ñoom bu ko soxlaa woon chinois yi ak ñi nga xamante ne moom mooy Turquie yi ndoxu géej gi intéressé wu leen de jën yi fi nekk moo leen intéressé <laughs> te tey gouvernement war naa mën a pratiquer ba jël li nga xamante ne moom mooy ay jën di leen ko jaay pas mu leen di jaay ay licence pêche mm-hmm. ndaw yu réew mi war nañoo mën a liggéey développement Sénégal fa ne ban ressource moo fi am mm. am nañ jën kan moo koy génne doo fay ñu koy génne pétrole bi ñu koy dégg rek ak gaz dañuy fay ñu di ko génn mais pêche artisanale bi mën nañoo génne lu ñu soxlaa si tonne tonnage yu jën bu fekkee Turquie dafa soxlaa ay jën ñu di ko jaay par ay tonne gouvernement bi da siy gis boppam. Mm-hmm. mool yi ñi nga xamante ne ñoo dëkk Sénégal di jóg di mbëkki di dem si géej gi di si dee foo dem sénégalais moo fa gën a torox. Mm-hmm. foo dem si àdduna sénégalais moo fa gën a torox doon sénégalais sax am na ñu koy bañ léegi. ca yàlla parce que bu ñu demee ba île ba kenn du nangoo doon sénégalais. donc euh, ah problématique baa ngi nii euh, Papa Assane kenn nangootu la doon sénégalais. parce que lan moo tax. lu tax bu ñu demee ba île ba kenn du nangoo doon sénégalais. ndax lan. Sénégal moo neexul. fi mu ah, toll nii ñu lay delloo ci benn dëkk. ñun ñun ñun ñun ñoo ngi prison break. nga ne ma. prison break lañu kon ay Michael Scofield juddu leen fii comme ñoo ngi prison break. Pape Assane c'est gravissime sur un ton ironique certainement euh, j'essaierai de garder espoir mais la situation est grave am naa benn vidéo bu ma gis nga gis euh, pêche bi euh, bateau tubaab bi wala mm. chinois yi mm. jël lu bëri euh, dinaa la ko jox demain certainement on a des vidéos on a des vidéos ah, très rapidement MD MD très rapidement fekkee mën na nekk nga gis ni nii ñun suñu nappkat yi ñoom dañuy obligé di for waxatuma la napp ci géej gi de mais dañuy for ay jën ngir génn mën a léegi génn ci ah. dëkk bi daal man man ni ma gisee. Mhm. moom mooy yàlla daf ñu jox bitig boo xamante ne ñun duñ jënd marchandise muy géej gi. Mhm. ñaata ton ñaata ton la état Sénégal mos a jënd. dugal ko si géej gi te pourtant mu ngi jaay ay accord de léegi boutique bi boo boo ko waree jëw nga jël boutique bi di jaay marchandise ñu jël sécurité tekk si boutique bi ah bu boobaa dalay dalay dalay jëriñ sa waa dëkk mais nga jël boutique bi nga jaay ko bu boobaa yow da ngay perte parce que yow boutique bi li muy génnee si marchandise du la jëriñ mm-hmm. xam nga xam nga xam nga Asma y yaa y a un phénomène aussi un fait qu'on doit souligner dans cette histoire de de vente de licence de pêche mm-hmm. parce que gis nga su fekkente ne sax ñi ngay jaay licence de pêche parce que collaboration euh, coopération bilatérale dafay am ci dëkk dëkk yu bëri. Mm-hmm. Euh, soit ñoom dafay am lu ñuy defal ñu am lu leen delloo mais mode de pêche bi ñuy utiliser. mode de pêche bi ñuy utiliser di nga xam ne ni moom la ñuy moom la ñuy nappee ci suñu géej gi Papa Sane. Mm-hmm. y a la pêche au mm-hmm. nga xam ne ay produit toxiques la. yu ñuy bàyyi ci géej gi ci benn surface bu ngand. jën yi suñ fa nekkee poison boobu moo leen di moo leen di rey. du ñu du ñu xàmmee bu ndaw wala bu ndaw bu mag. acoustique la pêche acoustique nga xam ne si par aspiration. Mm-hmm. par aspiration dañuy créer benn euh, benn benn aspiration ci ndox mi. Mm-hmm. nga xam ne jën bu romb a plus de dix kilomètres ndox mi da lay créer benn courant lay créer ñoom ñu jàpp leen. ñun Turquie ak la pêche par explosion. si par dynamique dynamique bi ñuy def ci mm-hmm. biir nga xam su explosé partie boobu yëpp dañuy dee. doo xàmmee jën bu ndaw bi nen bi war a màgg. lu ñuy jël ay filets yu approprié pour jën yu ndaw yi mën a rëcc mën a dem procréer waat mën a dund dundalaat mais li ñu yàq ci géej gi dafa bëri. Hmm. il faut un suivi. gis nga CRC lu mu wax. lii mooy géej gi nii ngeen di demee. waaw nii la ñuy demee CRC lu mu wax nee na bato yi nga xamante ne moom la fi gaal yi di euh, chinois di fi indi ak euh, kii yi euh, turki yi. waaw nee na benn bu nekk cinq milliards mayu la ko. Hmm? ñaata cinq milliards mayu la ko. mais ñuy jël mille milliards di ko def ci Covid mais tey actuellement lii li mbëkk mi rey instant bi nii clandestin yi. Hmm. li mu rey Covid bi jaaru fa sax. Hmm. bokkuñu sax yoon Covid ba waa léegi lan moo waral état Sénégal mu jël licence de pêche yi nii mu déplacé leen. Hmm. ñu dem seen dëkk ñoom fi ñu yaaxee seen dëkk ñoom amatuñu jën fi ñu nekk. te ñoom ñu ngi naan ndaw yi ñu toog fii liggéey investir defar ay poulailler. fii ban poulailler ban ban poulailler ngay dem ginaar bi ñu lekk am jën. boo demee ba amutoo jën yow say ganaar fa lañ jëm. en tout cas loolu doy na waar des conditions vraiment euh, précaires euh, dans lesquelles ils arrivent à voyager à arriver géej gi métti na léeg-léeg bi euh, géej bu yëngatoo wala ngeen toll ci marée haute sachant que vous faites plusieurs jours en mer naka ngeen koy dundee wala li ngeen nekk ay euh, pêcheurs da ngeen miin géej gi. wala ñun dinañ ko maîtriser. mais ñii dem noonu nag. bu fekkee ba euh, euh, Alioune Badara Bey mi nga xamante ni ci ñun la bokk. j'essaie de le dissuader d'y aller parce que moom il est déterminé. dafa nee na capitaine la gisul ak gaal bu gisoon capitaine ak gaal de dem. Euh, loolu noonu ñiy bees ci mbir mi te xamuñu géej naka lañ koy dundee. bu boobaa dañuy sonn si géej torop ba CRA ñoo yegg mais bu ñu yeggee mujjee parce que <laughs> yow nga jugee fee. Hmm. ñëw fii nga dem ba Espagne amatoo xamatoo fi nga war a jaar nga ñëwaat terre Sénégal. Mm-hmm. boo moytuwul sonn moo lay rey as feebar duñ la accueillir dañuy xanaa ñu jël la sax yóbbu kaso moo gën a gaaw mm-hmm. duñ la yóbbu hôpital duñ la yóbbu fenn mais ñun bi ñu demee Maroc ñun Maroc lañu teeraat après si la ñuy indee fii mm-hmm. proposé ñu ay ay visa visa yooyu noonu ay quelques personnes ñoo si am nga ni ma li si des yëpp dañ ko jaay te ñooñu fa lañ proposé ay visa visa yi foofu la ñu ko proposé parce que tey euh, am na kenn ku fa ñëwoon ab ko Ablaye Wade yebaloon mu ñëw di waxtaan ak ñun ba mu jëlee suñu formalité yëpp bi mu ko indee après ñu ñëw ñu yeb ñu yebal ñu ay société fii ñu dem foofu ñu jël suñu formalité yëpp ñun tamit mhm. dañu woo ñuy dem ay rendez-vous ba ma commencé woon a jàng espagnol konte man dem taxawoon na mhm. mais France daal di xëddeen ñi ma waroon a àndal dem nañ bàyyi ma fi am na ñoo xamante ne àndoon nañu tamit ñun ñoo bokk toog fii suñuy visa yi waroon a am ñu jaay ko actuellement nag ñooñu ñoo ngi egg seen i kër ñoo ngi egg seen ay matériels yu leen di liggéeyal ay millions man aw ma dara denc ma soixante quinze léegi pour yéen am pour am soixante quinze ngir mun a denc fukk sax il faw nga dem bi bitim réew parce que fii mënuñu fii fii boo naree gas di fi fekk ay keek keek yooyu noonu ministre de la pêche di commencé di def wala sax gouvernement bi ñoom parce que kenn du def dara te sa président àndu si hmm. man de man de man de man de xam na euh, kañ laa pare ci wax ji. keesu yaboy lu muy jar cinquante mille. keesu yaboy actuellement nii cinquante mille trente cinq mille quarante mille vingt mille vingt cinq mille. avant ñaata xam nga keesu yaboy lu mu daan jar. keesu yaboy téeméer sax jaay naa ko. may ma eh, eh aw aw dix mille ngaa wax may ma ka ma kër maam fële ci tëng géej keesu yaboy mille francs mille cinq cent deux mille li may wax nii diggante quatre vingt cinq. ay càkk ayca te géej dafa am dafa am ñu mu ñu mu ñu mu téye. oui du question pêcheur kese la téye. Mm. am na ñoo xam ne dañuy yenu pour lu ñu am yóbbu seen njaboot. Mm. am na ñoo xamante ne ay jigéen lañu sañ ñoo dem fenn ngir caaxaan pour am xaalis dañuy dem waas. looloo mu nekk ay points yoo xamante ni maanaam économiquement bëri na ay couches yi nga xamante ni ci la ñuy suqandikoo ngir dundal sa ay njaboot ñu di la jaajëfal en tout cas ci témoignage bi euh, mën naa bàyyi xel bu baax a baax courage courage à tout un chacun mm. en tout cas fii koy ndar keppe merci beaucoup papa Sarr tak dana waar ah, merci monsieur Thiam. Euh, c'est moi qui vous remercie. mais di bàyyiloo askan wi aussi xel ci détails yu ndaw yoo xam ne ni dañ koy jàppee lu ñàkk fayda xëy na ñu bëri dañ ci daan kaas. Mm-hmm. suñu doom yëpp bëgg nañu nekk mbër suñu bon doom yëpp bëgg nañu nekk woykat bëgg nañu nekk fubalkat mm-hmm. waaye làmb ji taxaw na lu yàgg booy yi dem nekkatuñu mbër nem nañ ci mbedd yi di agressé ay ah, bi doxatul nawetaan bi yàqu na sànnante ay xeer stade yi di écroulé wu ci kaw nit ñi. très important amatuñu loisir amatuñu dara donc les gars du coup ils n'ont plus rien. ils n'ont plus de quoi s'amuser y a pas de loisir y a oh, loolu yëpp dafa bokk ci nguur. parfait merci beaucoup merci Germaine Barros. di leen jaajëfal di ñaan yàlla mu dolli du ñu sutural te du ñu sàmm. parce que li xew si dëkk bi ñaaw na trop asma. amiin yaa rabbi merci beaucoup encore à l'équipe euh, technique merci à toute l'équipe euh, d'aujourd'hui oui euh, l'anniversaire aujourd'hui c'est l'anniversaire justement MD de kenn doomu kenn ci ñun. Euh, ki nga xamante ni euh, moom euh, Diop alors Tidiane Diop justement bébé moom mooy fêté tey son anniversaire alors justement je cherche le message alors oui Papa Sansek moom doomam mooy souhaité on lui souhaite un joyeux anniversaire voilà Matel Diop on te souhaite bébé nga dundu ba say may mm. di baawaan doon doom juy faj gàcce te bañ a doon doom buy teg gàcce incha allah rabbi waaye yooli fee tamit ñun ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci sañse bi tey euh, di rafetlu waaye lu li fi tamit tradi euh, voilà c'est magnifique tradi moderne c'est excellent c'est beau machallah merci on vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de Soubatel mais en attendant bonne suite des programmes sur la télé